Mm-hmm. am na beneen question boo xam ne tamit soulevé woon naa ko. Mm-hmm. mooy affaire évidemment mandat de dépôt yi. Mm-hmm. dafa bare. alors li ma bëgg mooy ñu sérieux seet ñan lañu ñu war a def mandat de dépôt ak ñan lañu warul def mandat de dépôt bu fekkee ni yëf bi c'est purement politique. mais amul yenn arrière-pensée yi parce que man li may bëgg ci Sénégal quand dañu war a di waxante dëgg. Hmm. quel la le problème aujourd'hui lan moo tax Sénégal yëngatu góom bi lan moo nekk ca biir. Hmm. mais bu ñu ko waxul nañ ko wax askan wi. ku ci xam dara na ko wax. Hmm. parce que du noonu rek la ñuy jëlee nit ñi di leen yóbbu di leen nëbb jant bi. lan moo nekk au est-ce que Sénégal dafa nekk une dans une situation un risque grave d'instabilité ouais. c'est ça c'est une question ah il faut que poser cette question mm-hmm. li ma gis nag évidemment dalul xel yi xew Sénégal dalul xew mm-hmm. li xew Sénégal tiital na ñëpp war na tiital ñëpp parce que mm-hmm. xamuñu ëllëg lan mooy xew Sénégal li xewagum léegi dafa métti métti boo xam ne jaaxal nañu waaye il faut que état la nekk il faut que état bi régler problème sénégalais yi mhm. man ba ma daan wax président makisal Sall génneel affaire u troisième mandat bi nga toog ak sénégalais ngeen xool lan mooy vrai problème Sénégal bi. quand même. Mm en termes de sécurité. Mhm. ah loolu jot na. kon boog man dama ni mandat de dépôt yi bu baree dañu xool lan moo xam jar na mandat de dépôt ak lu jarul mandat de dépôt. Mhm. yaakaar naa ne am na yoo xam ne jaruñu mandat de dépôt waaye am na yoo xam ne jar nañu. mandat de dépôt. Mhm. boobu affaire boobu nañ ci nañ ci xalaat ah, nañ ko xalaat parce que réew mi lañu am nanguwu dem. ma ne ku mel na man gis nga dama jàng fii université. après dem France bi ma demee France mënu toog ñetti at man leen maa ngay ñibbi sama réew foofu lay liggéey après proposé nañ ma ay poste fu nekk man leen fii lay toog mais bu ma fii toog bëgguma ay cocktail ma la taw di ma laaj di ma mm-hmm. laaj mm-hmm. dama bëgg nekk ci sama féex ak sama affaire ak euh, sama ma sama sama famille samay nit nit ñi population bi. Mhm. de manière générale kon boog Sénégal na ñëpp ne yar ubbi bët xool góom bi lan moo nekk ci suuf. ñu am fitu ñu am fitu ak sincérité wu wax ko. nañ koy wax. Mhm, ñu am sincérité wax ko ba bañ a nekk politique rek tey waaw. dama bëgg ñu toog tey seet <clears throat> Sénégal lan la parce que ñu ngi jël nit ñi di leen dugal mais il faut ñu xam. ñu waxtaan ci lan la quel est problème y problème. ban la ak ñan ñoo ca nekk ak ñan ñoo ca nekkul donc il faut qu'on règle peut-être ce problème